asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaan sama kàddu fekk leen ci jàmm waa daayira sopp sëriñ Saaliw bu Tayba Mbay ci njiital sëriñ Mamoor Jàng sëriñ Ngañ Njaay sëriñ Mataar Gay jëwriñ Xabaan Gay ñoo leen di fàttali seen bis bi ñuy amal at mu jot ren jii nag mu dëppoog àjjuma incha allah troisième jour tabaski ñu ciy woo jullit yépp nag ak waa Tayba ak li ko wër ñu war sa ànd ak jànkat كياس وعاد مسيري قبل حد كنت توبا وعاسر موسى صار قيما باي اك اي ايف تسير بريسيو حمد النيلي لحاسي بسبا وعاي ورجع عندك من سنشي المطار هم مجال بك المراحب وورن يدفع الوحطان دي ميكو حتى الواقع با حمنا نكون داخل يوان يسر محسكة بو دفع المفا وحطان بو امسل نباري دون جوي temps bu gàtt ban joxoon suñ si Maxtaar ca waxtaan wa ca sunna xasida ba ba tax ñu kon nañ ko andiwaat mu mottali yéeneem fii si Taïba Mbaye kon daal ñu koy fàttali mbokk di ko fàttali ci di ko fàttali ak li ko wër àjjuma incha allah troisième jour tabaski bu kenn tardé bu kenn manqué di ñaanal képp ku seew ci teew ci bis boobu rek nga daje seen ngërëmul Seexu Xadim ñu ngi leen koy ñaanal bu baax a baax di rek ñoo ngi waajal bis